kii bu jëlee kàddu mën naa moo ne maa nopp waaye li tax ma jël kàddu laa bëgg ngeen wax yéen a tax ma jël kàddu yëkkati ko di ko dëgtal madame la ministre Soxna Awa Diop Mbacké ngir mu tegal ni ko ci loxo président Macky Sall waaye yëkkati suñu kàddu di ko dëgtal kii fi toogal représenté monsieur le ministre Mansour Faye ñu ngi leen nuyu bu baax di leen yóbbante cant te président le ministre Mansour Faye moom it Babacar Thiam ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko yónnee yónnee ab cant ci le ministre Mansour Faye waaye itam dañ lay yóbbante ci li may kàddu yi may bëgg wax nga tegal ñu ko ci loxoy mu tegal ñu ko ci loxo premier dame ndax am na kàddu boo xam ne laa koy waxal damaa bëgg nga tegal ñu ko ci loxo premier dame soxna Awa Diop Mbacké ay monsieur El Hadji Dia ambassadeur général Matar Diop Serigne Mbacke Faye ak ñëpp koo xam ne daal suñu kàddu gii mën nga ñu ko yóbbul ci loxoy président Macky Sall bu mënee kàddu yooyu doon na lu neex lool te nag yóbbante la yóbbante la yóbbante la tey Cheikh Abdou Lahad Mbacke laa leen yaatu li ma yaakaar fii ak ëllëg li ma ñoxoon day bëgg Mbacke Xaadimal Moustapha ko ñaaw kon damay sant bu baax Galas Diop mooy man maay moom moo ngi nii toog di sant Moustapha Fall sama xalifa yii sëñ Xamban Ndiaye sëñ Abdou Fatah moom sëñ Xamban ñëw na fi ñëwaat fi moo ngi ne toog ci kaw di sant sama bàjjen yee sant Fall ak ñi nga xam ne samay bàjjen la la samay rakk yu waajur ak ñii di samay mag bëgguma lim juum bu ma limee ak ñi fi docteur le professeur Ablaye Niane yabal ñu ñëw léegi ñoom Mbacke nañ ñoom si Moussa it Ablaye Niane yor seen loolu lañ war a dimbalee dinaa ci yegg si sama biir kàddu muy BNDE muy banque ay financement yu la war a dimbalee dinaa leen ko wax léegi ni di sant ñëpp ñi fi teew ñi ñëw ak ñi nga xam ne damay bañ lim bu limee di juum ñoom caacoo ñëpp ak ñi fi jógee ñoom Mouhamed Cissé ñëpp sant naa leen ku lim juum waaye nag mention spéciale yéen jigéen ñii yéen laa am ku ma bëgg jàppal ñu jàpp leen jàpp leen ku ma bañ na leen bàyyi ku bëgg ma wan ko ginnaaw na leen wan ginnaaw soxna la Diop ak yéen kilifa yi nekk ci kaw jëluma jël darajey marraine bii jagleel la bis bii ci hasard wala wutul koom ci yow wut defuma loolu damaa gis ne président Macky Sall laa jox cër mu jël la France ga nga nekkoon nekkoon ci ambassade consulat France mu jël la indi la fii Ibrahima Ndiaye ak Cheikh Ndigal Fall Kalla sama mag sama rak ñëw nañ fi Ibrahima Ndiaye tamit mouvement M2N maa ngi koy nuyu waaye damaa bëgg wax ne président Macky Sall ci message laa bëgg yegg ngeen déglu ma président Macky Sall dalaa France nga ñëw indiwaat la Sénégal mu def la ministre conseil dénk la wàllum daara yi nga xam ne moom la sëñ Mountakha dénk sa borom kër. dëkk bii di dëkkub daara ñii fi toog ñëpp yor nañ ñëpp yor nañ ay doom yu nekk ci daara wala yor nañ daara yu nekk seen koñ ñu ngi leen taxaw waaye ma gis ne sa sincérité ak sa dignité ak sa dëggu moom moo tax ma bëgg laa teg loxo yi sa kàddu yi sa loxo bala ngeen a wax ci yéen ndax da ngeen wax waaye kaddu yi il faut ma ko ngeen dégg ko pare ndax boo dee da wax ba pare ma doog a waxaat du solo waaye damaa bëgg ñu ba pare ngeen yóbbul ñu wax yooyu tegal ñu ko ci nopp Macky Sall tey jii président Macky Sall bala moo tëdd du mën a yéene moo di awma lenn lu dul Touba Mbacké département de Mbacké moo di awma lenn lu dul jigéen ñi ak ndaw ñi ànd ak man awma ay militant wutuma militant dama leen koy wax yaakaar naa lu si bëri miin leen kàddu boobu ci imaam te loolu laa gëm moom laay dund wutuma militant wutuma ku may wutal yëgat ci kàddu di ma tàccul man li may wut mooy taalibe Sëriñ Tuubaa ak ñu dëkk ci dëkk Sëriñ tubaab bi am gëm-gëm ne war na loo mën a liggéey war na loo mën a liggéey ñu jàppale ñu dox dem ci kanam man loolu laa gëm moo tax ma jàppaleen samay waajur ñii samay waajur la ñii samay mag la ñii samay rakk la léegi lu mu dul defloo samay ñaari waajur yi nekk ca biir kër gee du ma leen ko defloo xalaatuma ko loolu nag day tekki ni woowu ma leen pour jariñoo leen su ma leen naree jariñoo yàlla na ma saa borom jël tey jii parce que loolu laa gëm moom laay wax la ma am nag lépp dinaa ko def ñu fekk ma si ñàkk ma cee fekk dinaa ci ànd ak yéen ba keroog may ñàkk may tële mënatuma dara waaye su may raam dinaa raam am na ñoom su may dox dinaa dox am na ñoom su may daw dinaa daw am na ñoom su ma leen mën a boot dinaa la boot am na ñoom loolu la am te président Macky Sall nag ku mu mënoon ndam ci dëkk bii ku mu mënoon ndam ci dëkk bii di nga bàyyi xel bu baax jigéen ñi ak ndaw bu wat jotee wat président Macky Sall ay carte la soxla ci élection yi ñu jëm élection yooyu nag bu ci yàlla yóbboo ay carte la soxla ci ñun te carte yooyu boo wëree bureau de vote yëpp bureau de yëpp boo leen wëree jigéen ñi ak ndaw ñi ñoo fa nekk. waaye dëgg la waay. kon nag ñun am na lu nekk suñu loxo nan ko wommat teg ko seeni loxo ñu jëriñoo ko suñ ko jëriñoo rek suñ ko jëriñoo rek ay goro ñu ni toog kenn du leen defal teraanga ñu koy fëpp. na man maa ko dund ak ñoom defulu ma leen dara te ñoom ni toog lii sol tey kenn man wallahi yàlla sama dërëm jotuma leen ñoo ko forcé seen bopp cotiser ko seen bopp teg ko ndax loolu nag xala engagement yi foofu li ngeen def tey war ngeen ne mi war ngeen ne ma tey fii la fi ngeen man maanaam ñëwoo leen ànd man topp ma da ngeen ñëw bokk yëf yi ndax waat naa ko Cheikh Ibrahima Fall fiftin joxuma ko dërëm kii kenn ku ñëw toog fii fiftin joxuma ko ceeb bi itam indiwu leen ndax li am ci ceeb bu ñu ko séddoo li li ñu xoo oto si ëpp li ñu oto si solo ko li ñu am ci ceeb te Cheikh Ibrahima Fall xam ne maa fi téye te wallahi azim xam ne man sama jëmm jiyee tax waaye nag looloo tax na nga bëgg président Macky man jox na ma waaye lan ma jox liñ ma boot dafa ëpp sama salaire maa ngi ko waxal mosuma ko wax waaw waaye damaa bëggoon a xamal foofu lenn waaw baax na waaye daal li ma bëgg a xam mooy man sama compte bancaire sama compte ku fa dem ku fa dem tey jii ubbil na ma compte épargne waaye boo fa demee tey jii tey tey su ma soxla woon dara mënu ma fa am ndax fépp nekku fa te fas yéene wu faa denc ci fekk yéen a ngi am soxla ma ma mën koo fay fas yéene ma ko denc kon nag li ma bëgg ren la ñii yalwaanuñu ñii yaakusuñu ñii tëdduñu seen biir lal toog di xaar ndimbal ñii ñëw ci naaj bi ndax lii lañ leen jàngal ak céréales ak yeneen ak yeneen jàngal na leen ñaw jàngal na leen céréales jàngal na leen frise légume jàngal na leen ñaw jàngal na leen ab cuub jàngal na leen yarum ginnaaw jàngal na leen nan lay yore xaalis jàngal na leen commerce. kon na ñii nanu teg ay matukaay wax naa ko Matar Diop da ngaa def lam solo ba ci dem jot leen femme yi financement bëgg naa boo jëlee engagement boo ñëwee di jël dox fii kam man tamit man di nga doon ci ma ma am say pexe ndax jëndee nga xool. boo delloo Dakar nee na ma wax ne ma bëgg mu def ko kon nag Matar Diop xam nga laa bëgg cinquante millions pour sama famille. te loolu mën nga ko ndax li tax mën nga ko café gaa ngi nii. comme journée sociale la man participé naa trois tonnes ceeb te journée sociale nga joxoon ko jigéen ñi. incha allah beneen bi li ci am solo mooy. ci développement la nekk te man sama rakk la sëriñ sama rakk la mën naa seede sëriñ jour bi muy am ak président Macky Sall fii la tegoon ay saison ñu ñu toj ko kon boog loolu nekk dinaa ci nekk comme que développement la te ñëpp ko bokk ñëwal Dakar incha allah suñ demee 13 dana recevoir mouvement bi loolu man maa jël engagement fii. ndaxte créé ndaxte yéen lu nit am ci parti bi da ngeen ko war a am. loolu laa gëm 13 moo yore FONGIP département Mbacké nag am nay xeexkat am nay xulóokat li ñu yore dañ cee bokk te yéen da ngeen cee bokk na leen ci jox seen wàll maa ngi leen sant bu baax. 50 millions jëm 200 millions. dégg nga nag boo demee soo demee man nag su may ñëw Dakar du ma ànd ak du ma ànd man lool ndax man du ma wër benn bureau. te xam nga loolu du ma wër benn bureau su ma la wër bureau maa nga tey takk di di di tabax samay sabal tabax sama kër aw ma kër aw ma pàcc sax aw ma wuruma kenn ñaaruma kenn lu may am ci nii laa ko amee moo tax nag dinaa am ak ñoom ànd ak membre délégation ab délégation ànd ak yow kon loo xam naa ko te man nga ko duñ ko def eh, le ministre Pape Diop bi moom di suma xarit yegg si na wutal ko fu di ancien maire wu Pikine Ouest di PCA Senghor yegg si waaye li may yegg tamit yegg rek muy di sant bu baax Bas Basiru Kebe xamoo leen ko xamoo leen ko xamoo leen ko te miinoo leen bu si sama wet waaye man xamal ni waaw sëwru nii nee na xam nañu ko ci xam mais xam leen ni li mu ëpp lu may def moo ma ci jàppale moo toog nii sol lu weex li bis bi cinq cinq tonnes ceeb la ci ñëkk a jox moo ngi ni toog te amul lenn activité bu ñu def ADE te àllam dugub dugub te homme d'affaires la politique moo ngi ni toog jógee ko Dakar ñëw toog muy Bassirou Kébé di ko sant bu baax di ko gërëm Matar tamit di la sant léegi nag li ma bëggoon wax foofu mooy yéen ñëpp organisé woon nañ leen dem leen ngeen organisé waat ngeen wut ay GP ñi amuloon identité ay carte d'identité nañ wuti identité ñi mënu woon na ñax woon di defar seen carte d'identité noo wat mënuñoo wote nan la wuti ñu mën a wote ji jàppale ma mooy jàppale président Macky Sall waaye nag maa ngi yóbbante yóbbante bi laay yeggale ci sama aw jëw mu ni ak ministre Pape Ndong ak yéen ñi fi toog ñii daal ku leen jàpp nga am ma ku leen cof cof ma ku leen bàyyi ma war la ginnaaw ak ku mu a doon damaa toll ci loo xam ne toll naa foo xam ne lii attanatuma ko dama koo boota boota boota boota ba soxla naa soxla naa ñu ma ci jàppale damaa bëgg ne président Macky Sall na xool na xool financement wala formation wala poste boo xam ne yeeyoo nañ ko te mën naa gàddu mbooloo mii ba kenn ku ma ci fëgg guddi boo ma soxlaa ma mën koo faj ba ma mën a jël sama poos man li ma financé du xaar état loolu la ñu xaar ci président de la République koo xam ne bu xeex jotee ñu ngi dem ci xeex bi ñu dem xeex te kenn duñ ci man bu wax wax jotee ñu wër fépp wax lu jëm jotee ñu dem jëf kon kooku li nga am war ko ko jàppale mooy nga jàppale man la may daaneel len la mooy maa ngi sant bu baax diñ naan maam booy jaaw di directeur CDC maam booy jaaw di meeru Kolda di taalibu Serigne Sall yoonam nekkul ci dëkk bii waaye yàllaa dogal mu gis ma mu bëgg ma ba bëgg ko ren jii daf maa yónnee ci téléphone ay billet avion yoo xam ne démb ci tukki la war a démb ci guddi la war a tukki ñëwul waaye mu yëkkati somme bu am solo muy toll ci limite deux millions jox ko mouvement bi moo waral moom itam bu ñëwee fii dinaa leen ko seedeel ndax kenn du jox ma di ko denc sama poos ngeen koy di umpule ndax li may wut yéen laa koy wutale kon jot na jot yoon la nga war koo xam tim tim tim tim lu ma leen ko lekkal bañ naa ko bañ naa ko lii fi joxe ci enveloppe Abdou Fall mii ci loxoom la tege soxluwuma benn seen benn enveloppe boo leen ci defee li ngeen ci war a def ba fay li ngeen war a fay lépp ba mu jeex la def ngeen dugalaat seen kees gi soxluwuñ ci ñaar dërëm ñun li soxla mooy daw di wuti ji dinañ indi ji ngeen daal feeg yéen ngeen am salaam di soxla di am soxla di ubbi seen i poset ubbi na i poos di gis làmb daj di ko fajal seen soxla seen bopp ñu woote bis ngeen mën a def oto si yaan yi ngeen seen bopp ñëw man sant naa saa borom naa bu baax wallahi azim mënu ma leen a fay Seera Fall xam ne mënu ma leen a fay bu dee nag bu dee nag am naa am naa daray Cheikh Ibrahima Fall dara ab cof ci Cheikh Ibrahima Fall yàlla ne leen Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall kàttanam may leen gudd fan ak wér ba na ngeen déwén ngeen teewaatul li ngeen man ren ngeen man fukkam na ngeen a déwén yéen ñëpp tey yéen ngeen gën am kàttan gën a jëm kanam saa dafa ñu taw fee ci weeru koor bi bu baax li may ñaan nag leen rek yéen kat ren da am lu lu lu kenn amul xew-xew yi doy na ci waaye ku teg sa tànk ci dëkk bi dina ñëw ba seen bis bi pare même dafay taxaw doo ko dem dana dem kon jox na leen cër te yéen ko liggéey bu yéen yaa foo sëleen de boo leen yaa foo sën da ngeen organiser ci ñëw waaye képp ku bëgg dara ci dëkk bi képp kuy liggéey président Macky Sall ci dëkk bi teew na tey jii dëkk bi waaw mais sant naa leen gërëm naa leen gàcce ngaa la ma yéen leen seen bopp maa ngi wax défi essentiel bi dëggantaan Pape Ndaw li fi essentiel bi dëggantaan Abdou Lahad mi leen woo wax na xam nga Europe day wax ne lekkatu neen naku tibay waaye ndokk nag yéen di ngeen amee njiit mu tudd Abdou Lahad Faye nag ku ko mën a tudd ku nekk mooy ñàkki caaxaan ndax nag Cheikh Abdou suñu jàmbaar ja moo daan wax naan ku ma demal ci waar wi rek dégg jërëjëf kon nag buñ ko duppee Cheikh Abdou Lahad mu nekk fii ci Mbàkke bokk ci Mbàkke dëkk ci Mbàkke moom Mbàkke mën a dajale mbooloo bu nii te xam ne nag dajale mbooloom jigéen ak a jafe mu mun leen a say def leen benn tàkk ngeen di yëkkatindoo di tegandoo ça veut dire que Abdou Lahad naxu leen daf maa yónni ñëpp a teg ci borom réew mi waaye ci diggante bi sama jeune frère Matar Diop li ma bëggoon wax wax mooy Abdou li nga ma yónni naan dinaa ko président la république waaye am na ndaw yi fi président de la république teg ñooñu laa koy wax ndokk nag bi nga xamee ni sama rakk Matar Diop nee na dina ànd ak Abdoulahat dem ci Thérèse mu financé femme yii ndax femme yii nag ñii ñoo jar a financé ndax nag tubaab police dafa bëgg maa fekkee lii nag preuve mënu ko gën a tangible ñun nag dañuy politique ginnaaw ndombal tànk yi ñu tàkk dañuy politique te bu di politique nag wuti mbooloo ndokk nag boo amee mbooloo moo xam ne yàlla dimbali na la ba nga seeyal ko sa bopp li ci des mooy téye ko woon nag nañu dimbali Abdou Lahad mu téye mbooloo mi li ci des mooy yëfi diggante bi naqar bi xaj dafa am fu ñu jëm fu ñu jëm mooy deuxième quinquennat deuxième quinquennat nag ku fa dem dafa am loolu da ngay yób dem xare da ngay yóbbaale sa ngànnaay ngànnaay nag mooy carte électeur bi li leen Abdoulaye wax ne ñi ñi ñi bindu woon am bureau de vote nañu téye seen i carte ñi bindoogul woon nañu dem bindu ji ak Serigne Mbacke Faye kenn du ma fi wut su ma ñëwee fii ci kër Abdou Lahad Faye ak Serigne Mbacke Faye Cheikh Ibra dugal na ma Cheikh Assane dugal na ma Serigne Modou Moustapha Fall dugal na ma président Macky Sall dugal na ma kon nag su ma ñëwee ci samay mbokk ñëw ci samay rak ñëw ci samay doom fekk leen ñu nekk ci li nga xam ne moom la Cheikh Ibra Sène maam bëgg mooy jëf jël ñàkk jariñu damay ànd ak ñoom ci li ñu bëgg ànd ak moom ci li ñu nekk jàppale leen ci li leen di dooleel li leen di gën a rendre digne parce que ñoom seen dignité la ñu ànd bu loolu jàllee hmm. ma santaat yàlla bu baax a baax sant yonent bu tedd bi ndax Abdoulaye daf maa fekk ci sama terrain dama waxoon keroog ne yëf yi du ci bureau climatisé yi yëf yi du ci voiture tente yi yi ci terrain bi la wàcc leen ci terrain bi xool askan wi wàcc leen ci terrain bi xool li li askan def ak li ñu bëgg ak li ñu jànkonteel man nag ñaari mbir ba fi ñëw ci dara jaal bi ma Abdou dara jaalee bés bi waaye ñëw tamit ci daara yi nekk ndey daara nekk doomi daara bëgg xam souffrance bi nekk ci biir daara yi ma xam fan mooy métti li xale yi wax fan mooy métti ndokk nag bi le président Macky Sall teelee comprendre que ni daara ci société bi la bokk président Macky Sall teel a comprendre yi nga xam ne ñooy ay sëriñ daara ak dongo daara yi nekk ci daara yi. ci réew mi lañ ko. wallaay wallaay. mu jël leen nag moom jël jël jël jëloon leen. 2012. Uh-huh. avec la modernisation des daara. waaye jëlaat leen nag jëlin bu bees en 2021. loolu la waral Badeya. nekkal fi ndey daara yi. nekkal fi sëriñ daara yi. nekkal fi ndongo daara yi. waaye nekkal fi aussi diplômé de l'enseignement arabe yi nga xam ne suñuy doom dañuy jóge fii dem bitim réew jàngi jàngi arabe indi seen i diplôme ñu war ko comme diplôme bi nga xam ne c'est le diplôme français ñu jël seen i compétence xool ne kii gynécologue la avocat la opticien euh, ophtalmologue la ñu jël leen teg leen fi ñu teg borom diplôme français yi loolu nag defe naa ne président Macky Sall gi ci bu baax a baax kon nag beneen pàcc boobu mooy li ma waroon waxtaan ak yéen mu jëm ci daara yi mooy ñun de ñun Madea suñu buntu tëjuwul suñuy bureau tëjuwul waaye nag ku dox ci mbedd mi di nga dajeeg ñun kuy tàntal daara di nga ñu gis ku woote ngir daara di nga ñu gis parce que loolu la ñu sant te xam naa ne nag pour liggéeyal daara liggéey daara yi xool li nekk ci daara yi doo toog Ndakaaru bëgg a xam li xew Mbàkke doo toog Ndakaaru bëgg a xam li xew Poroxaan doo toog Ndakaaru bëgg a xam la xew Kër Sëñ Moxsin Diop doo toog Ndakaaru bëgg a xam la xew Pire doo toog Ndakaaru bëgg a xam la xew Ñaseen dëgg la kon nag képp kuy tànt jëm ci daara yi di woote jëm ci daara yi wala nga gis lu metti jëm ci daara yi wala loo xam ne daara yaa ko soxloo ñun ñooy relais bi ñoo ngi toog ñoo ngi déglu yaa war di wax de da ngay doomi daara yaa war di wax de jàmbaar suñu nakaan Sëriñ Abdou Lahad Faye Sëriñ Mbacke Faye jërë ngeen jëf jërëjëf nag dafa tuuti. <laughs> tubaab di ko wax merci. merci yomb nañu waaye sëriñ Abdou sama sëriñ ba nee na. Ah. ku ma demoon ci waaram doo ko dégg. ku wettiwul sa ñàkk doo ko dégg. sa doom ñëw na ndax li tax ñu di ma ko defal. li tax ñu di ma ko defal sëriñ Bamba. waaye yéen tamit. Ah. li tax ngeen topp Abdou Lahad ak sëriñ Mbacké. Ah. da ngeen a jiital Cheikh Ibra ba pare. dooni taalibe sëriñ Bamba ba pare. doo ko ànd ak ñoom. jom leen. sama rak sama xarit sama doom sama taaw Mara Diop nit ñi day doog a moom sëñ Sidi Muxtaar mu Baara. conseil économique et social. joxe woon naa sangant ba pare ndax dama ne woon danga dem lëbi di koor. yaa ngi dëgg lool. mu ne dama lay seedeel rek li sëriñ Abdou Lahad ndax bi may ñëw. daje naa maas bu bari ñuy ñibbi si. ñëpp ñëw tey ba ñi ma àndal ci oto bi ma leen ñun bu ñu demee dañu fa fekk kenn de. bi ma ñëwee gis bâche bi yënguwul. Abdoulaye da toll noonu. nit ñaa ngi tàggoo. moo ko waaye nit ñaa ngi jëf ci commune bi na nga xam ne ñii. Ah. dañ laa gëm ndax sa jikko. moo ko jëf moo ko dañ laa gëm ndax say valeur. moo ko dañ laa gëm ndax sa dignité. waaye dañ laa gëm ngir Cheikh Ibrahima. dëgg la. moo ko fi jëf moo ko fi jëf. alal Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima. waaw waaw kenn du ko fooyee. kenn du ko foowoon taw. la topp na ngir Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima. da nga leen di delloo njukkal nga jàpp leen ngir Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima. nay soxla woo ca kaw. jàpp leen ngir Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima. ndax nee nga Sëriñ Fallou ngay fay bor. ndax Sëriñ Fallou. moo tuddee sooroo bi lamb samaam. wallaay di dawal dalal xel boobu. kon ndox nag bi nga dawalee ci ñoom lii takkaatal laxasaay technicien bu la samaam dem wuti leneen ñëw jox leen ko. ñëpp ko nawloo de moom madame ji ci Mbàkke Bawol gi ñu dëkk. Matar Diop sama rek jël na fi ay responsabilité cinquante nga laa jot mu ne la nga ñëw ñu dem tànk ak tànk mbagg mbagg nga laaj deux cent man nag danaa ci dolli samay wax. dama mën a am 300. tey waaye gàddu doon loolu jëm la seen xabaar. ndax fi ma daal di jaar di wax <laughs> ak fi ñuy dugg di wax <laughs> bu ma fa duggee maa élargir sama frère mu wuti 50 ma wuti 50 ngeen am 300. jeex na. kon nag soxna yi xam naa ne guddi na da ngeen war a taali ndogu koor gi métti na dëkk bi tàng na. maa ngi leen di masawaat coono di leen baalu àq te di leen baal àq te di leen wax ne leen ku la reer boo xëyee mu jox la ndékki na nga xaar añi mi di jot mu jox la añi kon bu raxasee cin li di waajal furna bi ne la maa ngi teg reer kon na ngeen xam ne di ngeen reer kon nag nañu ñaan yàlla ak yonent bi ak barke weer wi ak barke Cheikhul Khadim yi borom dëkk bi ak Cheikh Ibra yal nañu yàlla kattanal dooleel ñu ba nga xam ne buñ fiy siwaat dañuy ànd ak Thérèse Faye Diouf mu ñëw teg fii pencam ngeen yore seen chèque mu di leen financé ku nekk seet si nga a def nga ko te boo ko jotee yal nga ko muurloo ci barke Cheikhul Khadim gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp